tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub mais préparation Sass ki sama zor la Pawlish Mbaye sama zor baa ngi noonu c'est mon ami frère kontaan naa ci yow zor sama pro tey wuy ma comme benn star bi ñëwul tey yaa fi star. Ah, merci yow kay xam nga ne yow. fi laay taxaw di yow bëgg a defal la neex. di euh, muy sowu Ramadan. Ah, mhm. a taxaw na xaaral tuuti rek à part Wally Pawlish la. muy bisu mhm. ñuy baalu Sénégal yëpp àq. Mhm. ñu leen di baal àq. man nag man nag dama ñëpp baal àq parce que des fois wax waxi dof xam naa ne dofuma. damaa bëgg ñu xam ne sowu Ramadan weeru yàlla la du weeru ndaw. xale yi foree nañu téye seen gémb bu dee mënuñu koo téye su na ñuy suuf nañu téye seen yaram yi ñuy métti nii nañu téye seen yaram ngir jëme rasulillah weeru wi weeru ngëneel la weeru jàmm la ngir jëme Seydou naaw ñuy xeex di sànnante ay xeer weer wi ku ñëw ba weer wi nga mën a sànnante nga téye say xeer ba weer wi jeex nga mën a sànnante ay yow ndax weer wi. yow am na solo la. yow tey laa gën ci yow tey laa gën ci yow am na solo. très important. Ah. non dina ñëw anniversaire bi lay wax dina ñëw. weeru jullit la. Mhm. ku nit bu la tooyee dana koy baalu. jullit baalu ma la saw ramadan sama yoon new si. mën na saa xatima ti de. wallaahi <laughs> wallaahi Pawlish mën na ci wallaahi li mu wax am na solo. ala yaa fa ala am na solo de. Ah. jamra la dëkk li mu wax am na solo jamra la jamra la. jamra la dëkk li mu wax xam-xam la. li mu wax xam-xam la. xale bu ci volé. Uh-huh. dinaa la porte plainte. yow volé kat nga yow volé kat bu mag bi yow. Ah, depuis quand dinaa la feeñal yow. yow yaa volé kat bu mag bi. xam nga sëy nag. <laughs> waaw xam nga ndeysaan ndeysaan dëgg la ku baax. <laughs> yaa sant bu mag bi ku baax. Uh-huh. ku am ful la. dëgg la ay waajuram leen dama nekk damaa tugg jiw mu ne dafa bëgg yaay. Uh-huh. ay ma waxuma ko ay nit ma ko wax. wallaahi. lu am dafa jëlee yaay appartement. kon xam nga ne maa ngi gëstu. sa bis bi du bis bu ndaw. nii parce que am solo dëgg la sa bis bi du lu ndaw. dëgg te nit la li ngay liggéey te yërëmu la ci. dëgg la sonnoo ci demoo ci dara. teg mhm. teg yombul mais da nga koy liggéey ak crise. wallaahi loo am mu loolu la ko may mhm. mhm. di jaay affaire du ma tudd li muy jaay lu baax mu ne sama yaay laa koy jaayal moom laa koy yóbbul man man maa ko seede man Idda man la moo tax mu raw càq yëpp. <laughs> Mhm. càq yëpp nañ xaar di jaay kii wala mango. Mhm. li muy liggéey yaay moo tax ma koy dimbali. barke Serigne Saliou yàlla na yàlla sàmm man mhm. boo waxuma wax ci soo bi damay wax. dëgg la man dama bëgg fonk yaay. ndeysaan yàlla na la sa yaay gën a taxaw. yàlla nga yóbbu sa mag si dara jaay. amiin ndeysaan sa bis bii nag bis bu rëy la. amiin bis Ramadan. amiin bis koor moo tax yaay rek ngay dëgg. ndeysaan yaay doon pikiri képp ku ci mus teg sant sa yaay dëgg la nit ñi dañu intelligent. non Pawlish. nit ñi dañu xam ne yaay dañuy yombee man li li dañuy jàpp ne Pawlish dafa dof. li dafa raw ñëpp sama yaay la sama yaay dafa raw. wallaahi frère. du ma xeewi. sama mhm. cër yi nga damm nii waaye ah, yàlla baax na. Mhm. du ma dugg ci lu ñàkk a fay rek mhm. ma leen parce que yaay la. des fois sa yaay liggéey la nga ñàkk a fay rek fexe ba yàq ko. dëgg la. am nga lu wax ko am solo ñuy volé ñuy trap. ak kiwi yi. ak imbécile yi. te weeru ramadan lañ nekk. maanaam fëkk yi ak tason ak bordel xam nga nag bu waale ñëwul yaay sama star xam nga loolu yow. Ah, tey moom xoolal defal loo neex tey rek xoolal. on dit là on ah! defal loo neex. tey maa ngi doon jërëjëf tey ngeen xam ni tey journaliste bi may doon xiibon naa dégg yow waaw. ah yooyu tam Pauline. parce que parce que parce que c'est un panam. Mhm. capitaine baa ngi noonu capitaine journaliste yi. xam weer wi muy soowu Ramadan muy weeru yàlla. Mhm. ci ñaax nit ñi. Mhm. di ñaax sénégalais yi waxuma marché bi damay pare. parce que si ci lii. parce que wax parce que Ramadan dafa dafa division ampli dafa solution. xale yi fole bis bi du bisu fole. Eh, booy wàññi son bi son bi. wàññi ne son bi. grand wàññi son bi wàññi rek waaw li ñuy wax li ñuy wax dafa am solo. waaw te sa Ramadan la weeru uh-huh. yàlla la. Uh-huh. nekk nii ngeen ñaanal ma ngir jëm la mhm. ngeen ñaanal ma mhm. ngeen gën maa ñaanal ngeen gën maa ñaax xeewu laay mbër yàlla bu ne yàlla wax sonko sonko sonko ngir jëm la maa la ko ñaan sonko sonko yërëm man mii tax waxee te lii laa yaakaar kenn déggatuñu Sonko nga dégg Sonko Adji Sarr Sonko Adji Sarr Mame Mbaye Niang Sonko Adji Sarr dimbal nañu man man wax ay waxi politique sa nag xëy walaay bañ. mais lii sa équipe yow lay xaar rek. non non parce que may Sarr may waaj. waaw tey tey ñaata nga bëgg a door ñii. incha allah di nga dugal de. non damay dugal non door moom mënta ne. léegi fi laay taxaw di di ngeen may jël may def lu ma. di hurler def lu ne. merci allez. ok euh, dégg nga andi dugal dugal andi dugal fi andi waaw jox ko la waay andi dugal ma fi andi. noonu lu mu demee noonu gars yi dugal nañ de

di dani sama waay la jàmm ñal jaara busub wala mañ se bi jaara